naka la ñuy defaree njàng mi naka la ñuy defaree jikko yi yooyu moo waroon doon tey li nga xam ne dana occuper espace public yéen journalistes yi ngeen am loo leen wax. Mhm. mais su fekkente ne réew mi dem na ba tas tasar ba nga xam ni lu neex waaye def te yi gën a ñaaw la ñuy feeñal may fàttali ne man ji sama ngëm ak Sénégal bi ma xam man nit ñi may nawloo ci réew mi nit ñu baax ñi fi nekk ni ñu bëree. ñi am xam-xam ni mu bëree ñu bàyyi leen fi ñoom ñëpp di jox ay nit yoo xam ni jàngaluñ ñu lu baax joxewuñu modelle bu baax joxewuñu exemple bu baax ñoom ñoo nekk ci rajo yi nekk ci réseau yi di coow di coow guddi ak bëccëg taxaw seetlu jot na ci sama gis-gis soxna Astou. Mm-hmm. et loolu sax fa fa ñuy ñuy dooree waxtaan bi mooy li nga xam ne seetlu nañ ko euh, ci wàllum violence ci wàllum euh, jikko yi si wàllum surtout ñi nga xamante ni ñooy nekk toujours au devant de la scène. Mm-hmm. mais euh, en général la seetlu que ni du ñu joxe en tout cas le bon exemple pour ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di suivre. Mm-hmm. tey lan nga yaakaar ni moom moo nekk phénomène déclencheur de ce genre de de de situation la phénomène déclencheur bi moo di d'abord ay njiit dañu war doon exemplaire ñi jiitu donte ni ci jàkk la imaam la ñuy roy ñi féete ci kanam ñoo war a am comportement exemplaire ba pare organiser réew mi ba nga xam ni ku def naka su dul noonu ñu rëq sa ndigg mais su fekkente ne ñii def ay njombe kenn du rëq seen digg waxuma la kenn du rëq seen digg mais dañ leen di aar mhm. loolu tôt ou tard sentiment d'impunité lay jur ba nit ñi dootuñu ragal waxuma la dara dootuñu rus waxuma la dara dootuñu jomb te mel na ni foofu la ñu toll fi mu nekk nii violence bi ngay wax donte ne ci àdduna yëpp la violence tey ci troisième millénaire waroon na xewi ndax xelu nit àgg na foo xam ni amul lu mu mënul càmbar gis ci yoon Caïn et Abel depuis début histoire fa la violence njëkk am nit rey doomu ndeyam violence boobu société yi di évoluer di ko régler di ko réglementer di indi ay loi di jël la violence humaine di ko tënk ci ay charte mais suñ demee ba dellu mel ni ay bàyyima ñuy rey ay nit ça ne personne ñuy violer ay jigéen ça ne gêne personne ñuy rey ay bébé ça ne personne dañ koy déglu ci télévision bi ku nekk yaa ngi toog si biir kër banaliser de violence bi. parce que loolu lañu ñu commencé seetlu que beaucoup de choses yu ci mel ni ay viol ay meurtre et tout dañ ko mujjee banaliser ci société bi parce on en parle sax souvent mais dafa mel ni ça ne choque plus. loolu tam war nañu indi benn xalaat cest dire que tapage médiatique boo xam ni du am suite judiciaire. Mhm. dafay dem ba banaliser fee ñuy jàmbat su fekkoonte ne saa yu ñu jàmbatee benn problème justice bi rëkk ndiggu ki ko def. ñu tëj ko tëj bu exemplaire ba kenn dootu ko sañ def kon yëfi dana wàññeeku mais su fekkente ne nit mën na violer continuer di wax ci télévision yi nit mën na sàcc continuer di nekk ci télévision yi mën nit mën na trafiquer billet trafiquer drogue continuer di organiser ay activités am ni mu ko neexee dañuy dem ay at xale yi judd ci sunu keppaar tey di màggandoo ak loolu di ko gis di ko xam di ko miin danañ dem ba tollu foo xam ni fii loolu pour ñoom noonu la àdduna war a demee. Hmm. waaw àdduna boobu nag war nañoo waxtaan ci suñu biir seen ndax boobu Sénégal lañ bëgg wala beneen Sénégal lañ bëgg su fekkente ne beneen Sénégal lañ bëgg nag jot na ñi bëgg boobu Sénégal ñoom itam bañ a ñuuxu ci seen ruq génn wane seen bopp. d'accord et teg nañ fi lu lu mel ni constitution mais tey bu ñu demee bay débat ci wàllum charte mm-hmm. euh, bi nga xamante ni booy xool contrat moral la gën a nekk que li nga xamante ni mooy li tënk constitution mm-hmm. tey est-ce que vous êtes d'avis ñu pour genre euh, contrat yu mel noonu diggante ñi nga xam ne ñoom ñi ñoom ñoo ñuy jiite wala ay leader mm-hmm. ak population bi ci wàllum non violence xam nga suñu demee ba ay nit war a jóg sol seeni mbubb di dox ci biir ñi ñi naan signé leen ñu fii ne doo leen xeex signé leen ñu fii que doo leen xuloo déjà jéggi nañu fa ñu waroon taxaw wàcc nañu suñu ànd kenn waruta ci suñu société tey nekk sur l'espace public ñu jox la ndombo tànk wala ñu jox la daraja wala ñu fal la ci ak lu mënti doon te nitewuloo ay nit ñu nitewul nag mënuñoo sàmm ñi ci des loolu la ñu war a njëkk a seggaat dañu war a xoolaat ci suñu réew critères yi nga xam ni nit war na war nañ koo mën a xool ne kii kat mën nañ ko jox nangam mu doxal ko wala kii kat penc mi yëpp nee nañu kii ku ko jox sa alal mu nax saay yooyu dañ ko war a xool li ñu doon euh, euh, xool ci ki war a jiitu depuis temps wu Thierno Baal wax na ko am na ñoo xam ni soo leen jiitalee du du duñu dañu yàq te duñu defar kon nag. amoon na avis Sénégal bi ñu bëgg Sénégal bi ñu bëgg mu dox nañ ko xoolaat bu baax te teg ko ci lan ci yar mooy éducation ci njàng moo di instruction yooyu su amul ci réew wala suñ ko soofantalee wala ña koy def sax kenn dootu leen déglu mooy jox ay usurpateur euh, ñu occuper la place publique di ñu euh, di ñu nettali ay daar daar mm-hmm. et euh, li nga xamante ni tey euh, ci loolu la ñu nekk muy euh, waajtaayu élection gis nañ violence yi nga xamante ni am na si ba ba nga xam ni am na si ay nit yoo xam am nañ ci ay gaañu gaañu mais li ñuy laajte mooy pourquoi à chaque approche d'élection wala élection genre xeetu mbir yi di am et pourtant sensibilisation bi mooy jiitu est-ce que donc tollati nañ foo xamante ni sensibilisation jëriñati na dara si li nga xam ni moo di langue politique bi ak euh, en tout cas boobulee euh, monde nga xam ni da nga naan c'est un monde à part euh, boo koy comparé ak yeneen domaines yi nga xam ni ñu ngi si réew mi. mooy li ma la doon wax xam nga monde politique Sénégal tey dañ ko war a sax auditer amoon na fi parce que ni ma la ko waxee politique ay xalaat la. yu nit di génne teg ko ci espace public bi waxtaan ak askan wi ne man kat sama gisin ci àdduna nii la képp koo xam ni kii gisin bii ànd nga ci sànnil ma xob suñu waññee ñu xam ni kii moo ëpp xob ñu jox ko mu jiite suñ demee ba ay ay ay ay bés ñu xayma li mu def ndax dëppoo naag li mu diggee woon su dëppoowul ñu dindi ko te keneen mais Sénégal léegi du loolu léegi li fi xew moo di xaste werante weddi te weddi boo xam ne bii yow amaloo ko dalil mu munoo ko teg fu wér mais dangay wax rek dem sa yoon te comme média yi bëri na ku nekk am nga sa rajo ku nekk am nga sa journal ku nekk am nga sa chaîne YouTube ku nekk am nga Instagram ku nekk lu la neex wax te soo ko waxee mu siiw siiw nag du jàmmi borom war nañu xool siiw ndax loolu rek mooy li nga xam ni lii moo war a yëkkati nit nga koy doxal walla yiw itam ci la bokk man yaakaar naa société su bëggee équilibré war nañu fexe yiw ëpp fi mu ëpp doole siiw alors léegi li ma gis man ci langue politique bi ni ma la ko waxee doo sax dégg programme yi te violence bi du rekk violence verbale mais temps yi nii 15 jours da ngay toog ba mu yàgg rek benn oto gyrophare xamuloo lan la du ambulance du cortège officiel. Hmm. du dara mu ñëw fekk la yow yaa ngi dowal ndànk sa oto ñu bousculer la teg seen sono loolu du politique du politique donte ne 15 jours la dafay déranger daf ñuy déranger dafay déranger nit ñi ci seeni activité normale nañoo delloo si xel yi nga. ay ay et puis dafay mel ni on est dans une zone de non-droit péri 15 jours yi. Mhm. Euh, ku am doole. tout est permis ku am doole euh, def sa bodybuilding ba sonn ñëw fekk ku mel ni man nga xam ni kii dafa xiiboon nga bëgg ko pousse ko fële. tout simplement parce que on est en campagne électorale ba kañ réew mi dafa war a am ordre réew dafa war a am ordre te loolu man dama yaakaar ne euh, pouvoir public yi waruñu fi nekk. di neexal nit ñi ci lu dul dëgg. mais pourtant li ñuy wax mooy euh, fii dafa mujjee nekk ba ba strict c'est-à-dire parfois ñu ñu bëgg a euh, mobiliser wu wala organiser ay marches. Hmm. wala yenn fee am ñu bëgg teg daan ñi nga xam ne ñoo ko def. Hmm. mais dañuy tirer sur l'État disons que ni booy xool de ça tend vers la vers la dictature wala dañuy nekk di nekk ci dictature rampante. et tout foofu y a deux formes de violence. y la violence de l'État bi nga xam ni bii dafa war a normalement garantir nit ñi bëgg mën a marche. bëgg marche ñu autoriser la ñu marche sécurité publique encadrer leen police bi suñu police la su ma bëggee marche ma déposer demande wala ma bind lettre parce que léegi ci loi bi simple déclaration la ma def sama déclaration pourquoi sur dix demande benn la ñuy nangu alors que muy di sama àq ak sama yelleef donc loolu première forme de violence la deuxième forme de violence bi mooy autoriser wuñ la nga seet yan voie de recours nga am nga jaar ci yoon yooyu moo gën nga libérer say